gis nañ bu baax a baax ni sànq nii lañ ko voté ci àjjuma ji euh, jëm na ci li xam ne moom moo di report bi aj nañ ko waaw c'est normal parce que tout simplement euh, l'État n'est pas prêt a s'engager à des élections yoo xamante ni ça coûte cher loolu aussi pareegu ko beneen bi aussi mooy est-ce que l'opposition également est prête à y aller parce que tout simplement toujours on n'a pas encore ce consensus entre les deux parties maintenant élection locale nag du fi guléet ñu koy aj Sénégal benn élection rek élection locale musul am à date issue kooku il faut le connaître et le et le, et reconnaître ici au Sénégal il n'y a jamais eu d'élection locale à date issue sauf l'élection présidentielle hein, qui s'est tenue à date issue tous les autres élections moo xam législative moo tax xam local souvent il y a des changements et que loolu malheureusement là où le bas blesse mooy que c'est un échec quelque part de notre démocratie. Un recul démocratique se mesure à travers ces, ces, ces, ces actes-là posés. Parce que tout simplement, le calendrier républicain, c'est un rendez-vous très important. C'est un aspect important dans la vie d'une démocratie. dans un pays qui se veut démocratique dafa war a am le respect des règles du jeu mais malheureusement comme ñun on passe tout nos temps à faire de la politique politicienne à faire tenir des discours ah des promesses non tenues à descendre sur le terrain pour quand même belever pour quand même hmm, comment dire pour quand même leurrer autant pour moi les Sénégalais sans pour autant se pencher sur l'essentiel. D'ailleurs, à travers ce projet de loi d'ailleurs pour le report des élections, cela s'y ajoute également l'audit du fichier, l'audition du fichier électoral par rapport à des experts qui doivent quand même démarrer ce travail euh, bientôt. Maintenant, loolu aussi dafa am solo le fichier électoral doit être disponible tant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition ku nekk xam fichier bi ñu xam ñi voté ñen ñoo dee ñen ñoo deewul ñen ñoo nekk ci fichier bi et cetera que le fichier soit bien nettoyé ñu xool ko opposition bi ñi bëgg a dem ci langue gi bëri ji ci géew bi yor seen fichier bu leer ñi bëgg a ñoom nekk ci nguur gi yor fichier bu leer après nag askan bi atte ñu malheureusement pour de euh, galañ xamu nuñ ko ci waxate roof gal gal euh, tof yëngal ainsi de suite toujours problème d'élection malheureusement depuis plus de 61 parce que ñu ngi waaj a fête indépendance bi depuis plus de 61 61 ans mënuñu am un fiche électoral fiable mënuñu am une élection sans bruit des qui se tiennent à des dates échues qui euh, échues loolu noonu nekk na loo xamante ni échec la sur le plan démocratique te loolu dañ ko war a régler une bonne fois pour toutes te aussi opposition bi am nañ ci part de responsabilité parce que aussi il faut que ñu dem di dialoguer mais yow aussi da ngay toog ne dialogué wu ma l' état le pouvoir prend ses euh, ses ses mesures ses dispositions nga taxaw fee commencé di di di yuuxoo ko sax c' est ça le problème aussi que se pose il faut que ñu am consensus au moins amoon nañ fi li ñuy wax code consensuel de 92 pour au moins régler certaines questions yi nga xam te su le plan sur euh, ci processus électoral bi ñu bëri euh, reconnaître nañ ko mais actuellement malheureusement fii Sénégal te aussi élection locale yi dañoo élection locale ak lu mu ci mën doon war nañ fexe ba Sénégal ñu bàyyi gaspillage parce que élection aussi c' est de l' argent énorme qu'on dépense xaalis suñu xaalis bi rek moo ci dem ah. xaalis bu dul jeex la c' est des frais on n'a plus fini donc il est temps que aussi qu'on s'organise élection yu dul jeex yu bëri bëri te réew mi demul fenn aussi ce de des bombes à retardement ça nous retarde ça ne nous mène nulle part loolu dañ ko war a régler une bonne fois pour toutes Sénégal mën na nag nekk sur les rangs du développement mën a suqaliku mais malheureusement depuis 61 ans mënuñu sax bouger suñu maam yi sax bu ñu waatoon Sénégal tey xàmmee Sénégal gi ñu nekk c'est honteux. suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew da ngeen di abonné mën a jot moo mën a xam li nga xam ne